salaamualeykum mbokk yi bàyyi xel daara yaatal xeltu yin ñu ngi leen di nuyu di leen di am mbégte di fas yéene ànd ak ci dati bés ak njariñi bés bi mbokk yi ñu njëkkee ci dati bés bi di doore ci calendrier jullit yi mbokk yi tey la àjjuma yamook fukki fan ak ñeent ci weeru rabiul axiir muy rakk ci gàmmu atu 1443 muy atub junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett kon tey la vendredi 14 rabiul axir 1443 bu dee ci calendrier grégorien bi muy datub tubaab bi mi ngi yemoog vendredi 19 novembre 2021 mbokk yi li tee weeru koor ñëw téeméeri la ak uh, fanweer ak juróom kon li dox suñu digganteeg weeru koor 135 jours la mbokk yi ñu ñëw ci njariñi bés bi di ko doore ci ñaanuk bés bi ñaanuk bés bi mooy rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna maa shaahidin kon mën nañoo jàpp ne daal ñaan la guy yokk ak ngëm ndax dangay seedeloo yàlla ne ko ñun day gëm nañu euh, téere yi nga wàcce wala téere bii nga wàcce muy alquran gëm nañ ko mën nañ cee dégg itam téere yépp yi yàlla wàcce ci yeneen yonente yi waaye itam topp nañ yonente bii nga xam ne moom la yàlla subhaanahu wa taala wàcce muy saydna muhammad waaye mën nañ cee déggee yeneen yonente yi salawatullahi wasalaamuhu alayhim kon yow yàlla ñu ngi ñaan nga boole ñu ci ñiy seede ne e, gëm nañu sa téere gëm nañ sa yonente mbokk yi ñu ñëw ci xadiisul yawm muy xadiisu bés bi qaala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam amma tasaubu fa innahu min alcheytaan falyaruddahu mastataaca fa ida qaalahaa doxika minhu shaytaan rawaahul buxaari wa muslim mi ngi wax ci wàllu óbbali óbbali moom la tubaab di wax éternuement éternuement kon nit ki saa yu na jàpp ne óbbali ci shaytaane la jóge óbbali éternuement jékki-jékki rek ne loolu ci shaytaane la jóge looloo tax nag nit ki buy ëbbali air boobu di génn lum ko mën a delloo rek num ko mën a delloo rek na ko delloo maanaam nay fexe ba di défendre air boobu ba mu dellu di ko renvoyer waaw mesure yu mu mën a jël pour delloo air bi muy buy ëbbali na ko def na ko renvoyer lum man te moytu di wax maanaam am na ñoo xam ne suñuy ëbbali dañ naan loola baaxul loola lu jara moytu la ndax saa yooyu ëbbali ba rek boo ko yëgeeg boo ko yëgul boo ko déggeeg boo ko déggul seytaane mi ngi lay ree mbokk yi ñu ngi leen di ñaax ngeen ñëw abonné wu ci chaîne YouTube bii di yaatal xeltu yin di seetaan suñuy vidéo di ko commenter di ko aimer ndaxte fa la njariñ ye di gën a yaatoo allah allahu rabbi ñi ngi ñaanal ñëpp jàmm ko saaku ci ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.